أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وموضوعنا اليوم دعوة إبراهيم لأبيه آزر mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu darsu tey bi moo ngi aajuwu ci ibrahim alayhi salaam woo gi mu doon woo baayam te mooy woy juram bu góor walhadisu an daawati ibrahim li abihi aadar jaa fi ayatin kasira منها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في دلال مبين من بن ديلو القرآن الكريم danañ fa fekk ay aaya yu takku yu baree bari yuy jàngale aka wone ibrahima alayhi salaam woo gum doon woo baayam mu ne bokk na ci aaya bi nekk ci suratu an'am aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent borom bi tabaraka wa taala di wax foofu ne ibrahim alayhi salaam bés amoon na mu ne baayam wa is fàttalil yow muhammad fàttalil julli di taxawaay ibrahim ci biir këram ba mu tàmbalee di woote dafa def loolu olofi di wax te mooy mbay ci sa weewu tànn qaala ba mu waxee ibrahim ibrahim li abihi baayam ban baay mu ne azar lan la wax baay ji atattaxisu asnaaman alihatan ndax da ngay jël ay yàlla ay xërëm ngay jël di ko def yàlla atattaxisu ndax da ngay jàpp asnaaman ay xërëm alihatan di ko def yàlla da ngay jël ay xërëm yoo xam ne yow ibrahim yow yow azara yow baay yaa ko yett ak sa loxo defar ko ba mu rafet teg ko ci sa armoire wala sa bibliothèque wala nga teg ko ci sa dënn wala nga teg ko ci sa kanamu oto nga jël ko nga def ko place yàlla loolu nga bëgg a def yow baay mu ne baay ji bu fekkee loolu nga bëgg a def inni araaka wa qawmaka fi dalalin mubin kon de yow baay yaag say nit su fekkee loolu nga bëgg def yow baay yaag say nit gis naa leen ngeen nekk ñu sonk gis naa leen ngeen nekk ci réer gis ngeen bi mu woo waxee bàyyi ba pare daf cee adra waa daf cee boole nit yi adressé ci nit ñi dugal leen ci lan pour bàyyi ji xam ne mbir mi du moom kenn ñëpp la woote bi jëm ciwul ci moom kese ci ñëpp la ko jëmee nee na fitra Ibrahim pas-pas bi nekk ci moom ngëm gi nekk ci moom làmmiñ bu leer bu dëggu moo weddi jaamu xërëm ak pas-pasu xërëm allati yaabuduha qawmahu aliha xërëm yooyu nga xam ne mbokkam yi def nañ ko yàlla tegatuñu yàlla palaasam lan lañ ko wuutale lan lañ remplacer yàlla mooy xërëm yi dañ ciy jàng ne lépp lu doomu aadama jël di ko doxale digganteem ak yàlla rek loolu da koy nekk ci moom yàlla lu mu mën a doon alal xërëm soxna taaru àdduna lépp loo jël mu occupé ci yow li yàlla waroon occupé rek loolu yàlla la gis ngeen jàng ngeen ci alquran yàlla mu ne afara ayta man ittaxasa ilahahu hawaahu xoola waa joo xam ne xam nga kan mooy yàlla moom du ay xërëm du ay mais bakkan bi bakkanam mooy yàllaam mën naa lu bakkan bi bëgg rek lu ko bakkan bi xalaat su toogoon léegi xalaat ne man war naa njaaloo ji tey ci guddi day jóg dem war naa naa ni day jóg dem lu bakkan bi wax bëgg na ko rek mu def ko kooku yàllaam mooy bakkanam kon nga gis ne doomu aadama lépp loo xam ne ci yow dafa jël place bi yàlla waroon jël di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi di bëgg ci yow ay mbir nga koy taxawee di ko sàkku ci yow nga koy bàyyi ba mbir mu ko occupé ci yow rek loolu yàlla la ci yow moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam wax ci hadisam bu siiw bu ñu ëpp ci ñun mokkal mooy dafa giñ yàlla ci yàlla ñetti yoon wallahi laa yu'min ñetti yoon wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min laa yu'min ahadukum hatta yakunu hawaahu tabaan lima jitu bihi kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul day bàyyi ay bànneexu bakkanam mu topp man muhammad li ma indi da ngay bàyyi sa bànneexu bakkan fee nga topp li yàlla indi ak yonent bi su boobaa nga am imaan mais bu fekkee defoo ko amoo imaan mbokk yi fa ilahu allazi yu'bad wallazi yutawajjahu ilayhi al-ibad fi ash-sharra'i wad-dharra wallazi khalaqa an-nasa wal-ahya هذا الإله في فترة إبراهيم لا يمكن أن يكون سنما من حجر أو وسنا من خشب الله أكبر mbokk Ibrahima nee na yàlla ji nga xam ne moom lañ war a jaamu moom lañ war a gëm moom lañ war a jublu moom yàlla jooju nga xam ne lépp moom lañ ko war a def yàlla joo xam ne moom lañ war a jublu ci su neexee ak su naqaree su seddee su tàngee su yombee ak su dëgëree yàlla jooju ñu war a jublu yàlla jooju nga xam ne moo bind nit moo bind kuy dund yàlla jooju ci fitra Ibrahim ci ngëm-ngëmam moom Ibrahima pas-pasam mu ne yàlla jooju dëgg-dëgg mënul nekk xërëm dëgg-dëgg yàlla jooju warul nekk xeer wu ñu yet dëgg-dëgg yàlla jooju mënul nekk estati dëgg-dëgg yàlla jooju warul nekk bant bu ñu yet wallahi wax na dëgg gis nga pas-pasam bu set fitraam fu mu ko yóbbu mooy lan yàlla ji ñu war a jublu yéen da ngeen ànd ak ay shayatin seen yaram yi dars lay bañ ay shayatin ngeen àndal mun leen toog normal foog ngeen def dara Ibrahima nee na ndeysaan xool mbokk mi rek mu xalaat mbokk mi sànku nañ yàlla ji ñu war a jaamu yàlla ji ñu war a bëgg war ko topp ci jamono yu nekk fi sarra wa dara su yombee su mettee foofu benn mbir bu sew moo fa nekk am ñoo xam ne bu yombee rek la ñuy topp yàlla bu méttee rek ñu daw am ñoo xam ne bu méttee rek la ñuy topp yàlla bu yombee rek ñu ut laisser passer commencé xëtt frontière yi di noosi parce que dafa yomb bu affaire yi jeexee rek nga gis nga commencé di leen gis jàkk mais fekk poste bi mu ngi am dépasse du duñ ñëw jàkk mais bu affaire yi commencé ñu ñëw ah yàlla affaire yi métti na ay suñu borom yaa rab yaa rab gis nga commencé ñaan Ibrahima nag moom dafa ne yàlla bi nga xam ne ci ñaari jamono yooyu yëpp neex na metti na sedd na tàng na guddi la bëccëg la noor la nawet la neex na naqari na yàlla jooju nga xam ne moo bind nit bind lépp luy dund yàlla jooju nga xam ne moom lañ war a jublu jox ko lépp laa yumkin an yakuna sanaman yàlla boobu mënul wax dëgg booy xalaat mënul nekk xërëm non non non mënul nekk xërëm waaye nekkul rek mënul nekk xërëm mënul nekk xajar xeer bu ñu yet mënu ko nekk photo photo bu ñu takk mënu ko nekk weñ bu ñu takk mënu ko nekk pettaaw bu ñu takk mënu ko nekk gàllaaj bu ñu takk mënu ko nekk aw wasanan min xashab wala mu nekk benn xërëm boo xam ne ci bant la mënul nekk mbokk yi daawatu ibrahim kulluha rahma woote ibrahima lépp yërmande la daawatun kulluha rahma woote la boo xam ne yërmande la ëmb lu tax mooy terme yi ibrahima doon utiliser bi mu tàmbalee woote wa inni la arju min kulli qaari'in an yaqra al ayat al karimat الكريمة التي يحكي الله فيها نصح الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه بأسلوب عذب رقيق تبدأ كل جملة فيه بكلمة يا أبتي mu ne man mu ngi yaakaar ni kenn ku nekk ci ñun toog fii di dégg wax ji li yellu ci yow mooy nga jàng aaya yi nga xam ne aaya yu tedd yi nga xam ne ibrahim alayhi salaam moom la doon wootee li yell ci jullit mooy buñ jógee ci dars bi suñ delloo ñu dem ci téere tafsir yi téere quraan yi ñu jël aaya yi nga xam ne ibrahima moom la doon wootee ñëpp ñu jàng aaya yi mu ne di nga gis méthode uslub méthode système bu neex bu lewet bu am yërmande bu yomb bu nooy méthode boo xam ne Ibrahima moom la doon utiliser pour woo baayam pour woo ay mbokkam ndax Ibrahima phrase bu mu jël rek ci Qur'an di ci wax ak waa këram rek lan la wax dafa tàmbalee baat bi yaa abati xam ngeen baat boobu mooy lan kan moo xam baatu yaa abati mooy lan ah wax leen yaa abati déedéet du yow sama pap eh yow sama baay booy ndeysaan baay booy eh yow sama papa ak eh yow père ak eh yow baay booy ñett yi ban moo gën a nooy ndeysaan eh yow baay booy yi gis ngeen nu mu amee yërmande Ibrahima loolu la doon utiliser papaam eh yow baay booy yi lu tax dafa ëmb lewet ëmb rifq nooy ëmb respect respect tey boo amoon doom mu ñëw ci yow sa kanam sukk toog ne la baay booy yi dama am ak yow waxtaan loo yàkkamti yàkkamti di nga toog mais bu ñëw ne mais mais père dama la soxlaa xam nga loo koy wax maa ngi dem te ñëw wala mais bu ñëwee fekk la nga toog même ngay waaj a génn nga ñëw nuyu ko ñaari loxo ne ko bàyyi bàyyi booy dama la soxla de rek baat boobu nga wax dafa am lu muy def ci moom moo tax Ibrahima système boobu la doon utiliser ak papaam dafa ëmb respect hatta iza axaza abahu izzata kufrin wa hamiyati wa haddada ibrahim bi rajmi iz aada ila nasihati marratan uxra wa talaba minhu an yahjurahu nee na même bàyyi ji li muy nekk yéeféer yépp ak daan tëkku ibrahima sax naan ko dinaa la rey dinaa la sànni ay xeer ba nga dee nee na waaye ibrahima bi mu tàmbalee jël système bi dafa commencé naan ko léegi bàyyi na baatu dinaa la rey léegi xam nga lan la waaw léegi jëlee sa bagage ñu génn sama kër foofu la mujjee ak moom ki ko daan wax ne la arjuman nag xam nga fan la mujjee ak moom mooy wax jur nii maliya waaw léegi jëlee sa bagage rek nga dem moment bi man ak yow mënuñu déggoo nga dem ba ci kanam benn diir xëy na après dinañ mës a déggoo nga nga ñëwaat lu tax ndax système bi mu jël. nga gis Ibrahima wooteem nu mu ëmbee yërmande lan la wax papa ji bi ko papa ji waxee loolu illa anna ibrahim radda raddun jamilan radda raddan jamilan gaayatan fi luzuba wa rifqa wa rahma salaamun alayka sa astaghfiru laka rabbi nee na Ibrahima delluwaat na tontu baay ji ci tontu bu rafet bu ëmb bépp yërmande ak nooy ak lewet daan ne ko baay yal na jàmm nekk ci yow baay yal na la yàlla defal jàmm foo mën a ne man nag dinaa la jéggulul sama boroom sa astaghfiru laka rabbi du ma deñ di ñaan sama boroom pour mu jubal la pour mu def la nga nekk jullit pour mu baaxal la pour mu soril la xërëm yi ngay jaamu dinaa la ñaanal yàlla fii am na beneen njàng bu fi nekk mooy yow mi bëgg a yar bëgg a defar sa waa kër bëgg leen jubal bëgg leen ñu dund lislaam bul yem rek ci xaste ak di dóor ak di yedd waaye am na leneen lu gën a rëy mooy mooy nga leen di ñaanal ngay ñaanal sa waa kër ngay ñaanal sa soxna ngay ñaanal say doom pour yàlla dimbali la say doom jub ndax mbir mi moom nekkul xaalis nekkul doole nekkul kattan nekkul kilifa mbir mi lan la xéewalu yàlla la kan mooy wax ci ñun ne nuux mënul yar ulul azmi min ar-rusul kan moo ko ñemee wax nuux yonent yàlla ulul azmi waaye doom a ngi safara jabaram a ngi safara kan mooy wax ci ñun luut ñeme mënul yar abadan ay xoolal ñooñu am ñooñu am ay aleykum salaam wa rahmatullah ñooñu am ay soxna am ay doom ba pare seen doom yi dëng seen jabar yi dëng moo tax bul yem ci yedd rek bul dem ci yóbbu daara rek ne dem jàngi xuraan am na koo xam ne pour moom sama doom day alxuraan lay jàng dafa war a jub wala islaam lay jàng dafa war a jub déedéet njub yàlla moo koy defal ku ko neex kon del ñaan yàlla moomu di jubalaate mu jubal la waaye mu jubal say doom mboolem yonent yi da ngay dégg yenn saa yi ci seen ñaan ñuy ñaanal seen bopp di ñaanal seen njaboot jàngeen ci quran yàlla mu ne am na ci kenn yonent yi mu ne rabbi ij'al ni muqima salaata wa min zurriyati wa man zurriyati jàngeen ci quran rabbana waj'alna muslimayni lak wa man rabbana waj'alna muslimayni lak wa man zurriyatina ummatan muslimatan lak ibrahim jàngeen ci quran rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil mut gis nga ay yonent di ñaanal seen njaboot di ñaanal seen bopp kon gis ngeen loolu la Ibrahima utilisé fii ixwaani fillah hakaza al adab allazi la yasmu ilayhi gayrul mux- muxlisin nee na teggi na ngi nii yar bu mat sëkk boo xam ne nag du ko am mukk lu du ko sellal kii woote chaque jour warul mer saa yoo meree rek seytaane tafu na la ak kàddu guñ la mun a wax ak luñ la mun a def waroo mer chaque jour da nga war a bàyyi xel yàlla ndax sa daawa réussir waaye nee na lii kenn mënu ko am lu dul ñooñu tudd sellalkat yi ñu jël benn ci aaya yooyu mu leen doon wax sànq di wax na jullit yi yépp jullit bi war na ko jàng ci suratu Maryam aaya 41 ba aaya 47 borom bi ne wazkur fil kitaabi Ibrahim innahu kaana siddiqan nabiyya iz qaala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا برمبي من واذكر فاتل اليوم محمد في الكتاب إبراهيم في njàngale ci téere yonentu yàlla ibrahim alayhi salaam waaye innahu moom ibrahim kaana siddiqan nabiya kaana nekkoon na siddiqan ku dëggu la woon nabiya yonent la woon allahu akbar yàlla tabaraka wa taala mi ngi digal yonentu yàlla muhammad pour mu fàttali jullit yi fàttali nit ñi ibrahim ibrahima mi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko takkal ticket yàlla moo ko defal tazkiya an yusammihi llah siddiqan nabiya ku nit ñi ne da ngaa baax ak ku yàlla ne da ngaa baax ban grade moo gën a dëgër ah yenn saa yi nit ñi ñu ne kii ku baax la fekk waa ji baaxul de day maye xaalis maye xaalis ak baax du benn waa ji xool day maye xaalis waaye guddi mu nekk mi ngi ci baar yi mi ngi ci jigéen ñi jaay seen bopp bu ñuy tëdd ba fajar nit ñi wër ko ku nekk mu jënd la kilo mburu lu nit ñi di wax baax na
wala benn waaye bu ubbi baar di jaay sàngara ba pare di di di may ay saaku ceeb weer bu dee lu nit ñi di wax ku baax la ci yàlla xam nga ne kii baaxul kon mbaaxu nit ñi ak mbaaxu yàlla du benn yàlla moom ku mu ne da ngaa baax ku baax nga léeg-léeg yàlla ne nit ku baax la nga gis nit ñi ne kii ku bon la hmm? parce que li yàlla daganal nga daganal li yàlla bëgg nga bëgg li yàlla ne moo baax moom nga baaxal nit ñi bëgguñu loolu dañ naan kii kii kii kenn mënul dëkk ak moom ah soo taalee sa rajo bi mu ne la fayal sooy nelaw mu yee la loo bëgg a def mu ne la déet nit ñi li ñuy wax kooku bu bon la kii ku bonul fekk ci yàlla kii ku baax la kon gis nga du benn ñoom Ibrahima nag yàlla moo ne Ibrahima ku dëggu la ku baax la waaye yonentam la kon loolu mooy lu wér yàllaa ko takkal grade boobu wa wasafahu bi sidqi sabaqa wasfuhu bi nubuwa jiitu na yàlla tabaraka wa taala melal ko moom ibrahim ne ku dëggu la waaye avant yàlla dana yonent la laqad kaana ibrahim saadiqan maa qawmihi qabla nubuwa ibrahima ku baaxoon la ku dëgg woon la balaa yàlla di ko yónni mbokk yi gis ngeen yonent yi balaa yàlla di leen yónni nit ñëpp xam na ne dañoo baaxoon lu tax loolu muy nekk mu nekk sunanullah mooy tey yow mii boo nekkee ci dëkk bi di def yu bon di def yu bon nga dëkk ci nekk ci ñeent fukki at nga jékki-jékki rek tuub commencé nekk ci jàkka ji bu ñu julee pare nga taxaw inna alhamdulillah dañ naa la xoolal eh xam nga la la nag ñu dimbali de moo yow kañ nga fi yow moo yow kañ nga fi jub moo yow kañ nga fi moo yow démb yaa ngi fàttaliku sa démb yow yaa ngi fàttaliku bi nga moo tax yàlla tabaraka wa taala day yónni préparé koo xam ne kenn du ko ne kenn du ko mun a wax ne hé dimbali ñu yow démb fii am na yu ñu la xamaloon yonent yépp nag moo tax yàlla mu ne Ibrahim dafa dëggu woon même avant muy nekk yonent gis ngeen yonent yàlla Muhammad bi mu juddoo maamam moo ko tuddee maamam moo ko tuddee Muhammad waa Màkka na lañ ko tuddee
amin al amin bi ki yàlla yokkee rasulallah boobu la gaa yi bañ ku nekk daa tudd turam ñu nangu maamam tudde Muhammad gaa yi ne d'accord waa Màkka tuddee ko al amin ñu nangu yàlla ne rasulullah ñu lang kon balaa yàlla di ko yónni ñoom xamoon nañ ne ko jub la ndax benn bis kaaba gi taw ñëwoon na ndox mu bari tuufaan daal di ñëw daal di daaneel kaaba gi xajaratul aswad xeer bu ñuul boobu nit ñi di raay daal di bërëngu dem fële waa màkk bi ñu ñëwee defaraat kaaba gi ba pare keroog histoire bu rëy moo am dañu naroon rayante ba màkk ñëpp jeex doomu aadama doot fa yeewu ndax lan comme tabaxaat nañ kaaba gi ba pare kan mooy jëli xeer xajaratul aswad dugal ko place am famille bu nekk xeet bu nekk ñu ne ñoom la jaas yi génn ba ci yàgg rek ñu ne xam nga nu ñuy def léegi nañ ut ku ñu àtte ñu ne kan moo ñuy àtte ñu ne dañuy toog fi ku ñu njëkk a gis nga dugg ci kaaba gi rek yow yaa ñuy àtte ba ñu waxee loolu rek ñu seen al amin ñoom ñëpp ñu kontaan ñu ne jaa al amin jaa al amin ku wóor kaa ngi ñëw ku wóor kaa ngi ñëw boobu nekkagul yonent mu ñëw ñu wax ko affaire bi mu ne ñaata famille la ñu ne ñeenti famille mu ne indi leen benn sër ñu indi sër mu ne ana xeer bi ñu ne ko xeer baa ngi nële mu dox ak ñoom ba ci xeer bi mu ne ana sër bi mu ñu ne mu ngi nii mu ne lal leen ko ñu lal mu ne famille bu nekk na ma tànnal benn kilifam ñaata nit la ñuy tànn kon ñeent très bien te daal di tànn famille bu nekk tànn kenn mu nekk ñeent mu jël xeer bi teg ci digg bi daal ne ku nekk sër sër ñaata cat la yam sër ñaata cat la yam sër ñeent mu daal di jël xeer bi teg ko ci digg sër bi mu ne ñeent ñooñu kenn ku nekk jàppal benn cat ñoom ñeent ku nekk jàpp benn cat mu ànd ak ñoom ba ci kaaba gi nga xam ne tabaxaat nañ ko mu ne leen teg leen ñu teg mu daal di jël xeer bi dugal ci ruq bi jàmm daal di am ñépp ñibbi deret tuuruwul kon kooku waa Màkka xamoon nañ ne ku wóor la ñaareel bi xamoon nañ ne ku wóor la c'est parce que moom lañ daan dénk seen alal wala yàlla di ko yónni moo tax keroog bu muy gàddaay ci guddi gi mu ne imaam Ali fanaanal fii soo xëyee delloo bagage kon yonent yi noonu la leen yàlla tànnee dañu baax balaa yàlla di leen def ay yonent wala gis nga Ibrahim ay mbokkam xamoon nañ ko avant muy nekk yonent ku baax la kama kaana sadiqan aminan fi tablighi risala wa fi istislaamihi wa inqiyaadihi li awamiri rabbihi comme ni mu nekkee woon ku dëggu ku wóor ci jottali yonent yàlla gi ak jébbulu ak wommutu ci santaane yàlla ibrahima ku wommutu woon la ku déggaloon yàlla tabaraka wa taala la lépp lu ko yàlla mës a wax moom ibrahim ibrahima def na ko yàlla testé na ko façon test yu nekk waaye ibrahima day réussir dina ñëw suñu kanam dinañ ko xam yàlla reyloo na ko doomam yàlla dugaloo na ko néegu góor fekk mu nekk mag yu bëri yàlla def loo na ko mu def ko moom ibrahima alayhi salaam mu ne is qaala li abihi ya abati nee na xiwaarun ma abihi bi qawlihi ya abati nee na loolu benn dialogue xiwaar mooy dialogue may wax nga may tontu waaye man mi wax damay wax attentivement yow miy déglu ngay déglu su ma paree même muu nga par par muu nga may tontu moo bu nekk am na tontoom loolu mooy xiwaar wa hiya aqwa arrawabit wa awsaqiha nee na moom diisoo boobu dialogue boobu lu gaaw ci luy dëgëral di yeew diggante ñaari doomu aadama la su fekkoon ne tey da nga am benn waay boo xam ne chaque jour mu ñëw di diisoog yow gis nga bu yàggee yow mi looy dugg da nga koy woo mu ñëw toog yéen ñaar da ngeen di mujj a nekk ay xarit ay àndandoo ndeysaan wa min nahiyatin uxra yuhaawilu ibrahim an yukassira bi zalika uslub aljazaba haddata abi nee na lu tax ibrahima jël méthode bii di ñëw di toog ci kanamu papaam di diisoo ak moom te xam na ne baayam yéeféer la mooy xam na ne papaam dafa am wextan gu nekk ci moom wextan wextan gi mooy lan papa ji dafa tàng ndax papa ji yéeféer la bëggul nekk jullit Ibrahima loolu la bëgg a dindi ci papa ji wextan boobu mu tax day papa ji day ñëw toog Ibrahima ñëw toog Ibrahima ne ko baay booy dama laa soxla dama bëgg ñu waxtaan. hatta yastatiu an yuballiga risalata rabbihi loolu lan la ci namm mooy pour mu jottali yonent gi nga xam ne moom la ko yàlla tabaraka wa taala yónni wa yaqimu alayhi hujjatahu mu taxawal lay gu leer. gi ko yàlla jox pour mu jottali ko baayam wa hadi xayru soy jamono bi Ibrahima di wax ak papaam day dal du nekk di bëri wax comme ñun tey niñ koy defee nga dem jàng léegi-léegi benn hadis rek ñëw fekk sa papa di julli rek nga ne ko mushrik bidaa wa anta bidaa man su ko defee paa bi foofu lay jógee nag bañ sa hadis boobu ba yowmal qiyaamati même bu gisoon keneen di ko jëfee dootu ko jëfee parce que yow mi yow yaa yow yaa yor mbir mi yow yaa ko def baada naadaahu bi zalika al uslub al mujibi lil xanaan wal atf ginnaaw ba mu ko woowee ci baat yooyu nga xam ne day dugal ci moom lewet ak ndànku qaala lahu fi adabin ya abati lima taabudu ma la yasmau wala yubsir wala yugni anka shay'a yaa abati e yow baay booy li ma taabudu lu tax ngay jaamu maa laa yasma lu dul dégg wala yubsir du gis wala yugni anka shay'a du la jëriñ dara ndeysaan allahu akbar xoolal ibrahima fi mu tàmbaleeg baay ji am na lu mu bëgg dafa bëgg baay ji yëngatu raisonné mara mu ne ko lima taabudu lu tax ngay jaamu gis ngeen baat boobu la utiliser baatu jaamu maa laa yasma lu dul dégg xeer wu ne këng tëx du dégg bàyyi nga koy jaamu nekku rek du dégg waaye wala yubsir du gis wala yugni anka shay'a waxuma sax du dégg du gis mais bàpp mu ne ah mu ne lii mënu laa jëriñ de lii du la jëriñ allahu akbar kayfa taabudu yow baay naka ngay jaamoo yaa abati yow baay booyi ilahan la yasmauka iza nadaytahu bàyyi nooy jaamoo yàlla joo xam ne boo ko woowee du la wuyu yàlla moom lan la wax sami du'a man damay dégg ku ma woo yàlla moom boo ko woowee mu dégg boo ko ñaanee mu may la ah iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daay xoola ibrahima nag mu ne papa ji kayfa taabudu yaa abati ilahan nooy toppee yàlla joo xam ne laa yasmauka du la dégg isa naadaytahu soo ko woowee wala yubsiruka isa qtarabta minhu du la même boo ko jegee du la gis waxuma nag nga sori ko allahu akbar yàlla nag moom tabaraka wa taala foo nekk mi ngi lay gis foo nekk wa huwa maakum ayna ma kuntum ibrahima ne baay ji waxuma la sax yàlla sa yàlla ji du la gis waxuma du la dégg mais du la gis même boo ko jegee wala yajlibu laka nafaan aw yadfau anka makruhan munu laa jañal njëriñ indil la ko xëcc ko ba nga jot ci waaye munu laa jëriñ ci lor buy ñëw ci yow munu laa fexe ba dàqal ko wa hadihi suwar min suwarin kasira kaana ibrahim alayhi salaam yubayinu li abihi min xilaliha ajzul asnaami allati yabaduha nee na forme yi yoon yi yoon yu bari la yu ibrahima daan jaar ak baayam di wan baay ji tële gi nga xam ne xërëm yi tële nañ ko xërëm yi nga xam ne baay ji moom lay jaamu muy woo baay ji ila tafkir wal istifaada min ni'mati l aqli lan moo tax ibrahima tàmbalee ci papa ji rek ne ko lu tax ngay jaamu lu dul dégg du gis loo xam ne du la indil njëriñ parce que dafa bëgg papa ji utiliser xelam moo tax mu ne da doon woo papa ji pour mu xalaat pour mu jëriñoo xelam mi ko yàlla defal gis nga yàgg naa leen wax ne waa safara bokk na ci li leen dugal safara mooy ñàkk utiliser seen xel jàngeen ci suratul mulk yàlla mu ne waa safara bu ñu duggee safara ba pare dañuy nekk biir safara di rëccu wa qaalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashaabi sair wa qaalu nee nañ ñoom waa safara law kunna nasma ñun de buñ doon dégg aw naqil wala ñuy xalaat ci suñu xel kon tey jii fii ci biir safara maa kunna fi ashaabi sair kon dund bu safara ndeysaan gis ngeen moo tax nit ñi duñu utiliser seen xel yàgg naa leen ko wax man leen combat bi nit ñi di bëre nii xam ngeen lu tax mbëri bëri parce que utiliser wuñu seen xel ñi tëgg combat yi kan moo ci am doom juy bëre wax leen ma kenn promoteur yi ndax am na ci kenn ku am doom juy bëre wax leen ma ko kenn yëkkatiwul loxo de pourtant ñaata la ñuy fay millions yooyu xanaa seen doom yi bëgguñu ko ban doomu ministre ngeen ci gis buy bëree wax leen ma ko ban doomu député ban doomu sénateur ban doomu xalifa général pourtant ay millions la ñuy fay yenn saa yi nga dégg ñaata. 100 millions 100 millions xoolal 100 millions kan moo ko bëggul. waaye xoolal ñoom seen doom yi du ñu nekk ay mbër parce que ñoom dañoo utiliser seen xel xam nañ ne mbër yëfu dof la ñëw ci dof yi ne leen yéen kaay leen yéen moom cent millions ngi nii ñëw leen ngeen dóoranti ngeen futteeku ni leen seen yaay jure woon ngeen turoo saw takk ay téere li ma leen tax ne mbër yëfu dof la wallahi kenn ci yéen fii bu xëyoon suba def ni mbër def taxaw buntu këram fajar ki ko njëkk a ropp ci romb ci dëkkandoom day ñëw ne soxnaam diw kañ la dof ku ko wee dina ko utiliser fa sa fajaru tey defal li mbër def rek nga taxaw seen buntu kër ne nii taxaw ku la romb rek nga xool ko bu doon xëy day tourner këram dem ba waa këram ne diw kañ la dof ku dof la beneen bi mooy li ci gën a garaaw li ci gën a dee mooy gis nga mbëri bu ñu bëree ba pare bañ leen di jox micro même bu ñuy wax da ngay xam ne ñii amuñu xel foofu rek ci boobu rek laa leen mën a jox misaal ñàkk utiliser sa xel ku utiliser sa xel yu bëri doo ci dugg parce que xel mi daf lay jubanti moo tax Ibrahima bëgg baayam xool xelam yëngal xelam xam ne lii ay garab la benn moo ko jëmbat roose ko ba garab yi màgg mu yett ko par dagg def ko yàlla yenn yi ay xeer la moo ko yetti ba pare ñëw di ko jaay ba pare def ko defaat yàlla moom ci lay amee dépasse ba pare mu bëgg nekk yàlla Ibrahima loolu la bëgg yëngal xelu papaam pour papa ji xalaat loolu mbokk yi هذه اللمسة الأولى التي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه nee na li mooy première jéego première bunt bu Ibrahima tàmbali ak papaam di ko woo après mu teg ci bi annahu laa yaqulu haza min nafsihi su waxee papa ji ba pare ba papa ji dina tekk déglu su waxee pare naan pap lii ma la wax du sama wax de lii waxu yàlla la innama huwa al ilmu allazi jaahu min allahi fahadaahu lii xam-xam la boo xam ne ibrahima a ngi ko jëlee ci yàlla yàlla jubal ko ci xam-xam boobu walaw annahu asgar min abihi sinnan li muy gën a tuuti papaam ay at yépp papa ak doom ku war a mag papa ak doom ku war a mag papa doom moo war a gën a tuuti ayat papa wala mës ngeen gis papa ji- doom ju mag baayam mës nga ko gis mës nga ko gis mës nga ko gis mës nga ko gis mës nga ko gis yow kon doom papa moo ko war a mag papa moo war a mag doom waaye loolu lu muy tekki lépp looy mag mag mag mag sa doom léeg-léeg sa doom am xam-xam boo amul léeg-léeg sa doom raw la léeg-léeg sa doom takk garaat boo takkul léeg-léeg sa doom yegg foo yeggul est-ce que loolu gàcce la sa doom raw la yow mokkaloo alxuraan sa doom mokkal alxuraan mën na nekk yow doo imaam sa doom nekk imaam yow doo jàngalekat sa doom nekk jàngalekat est-ce que doom jooju bu ñëwee di wax ak yow war nga koo déglu wala waroo koo déglu est-ce que moo la raw ku la raw kay buy wax ak yow nga war ko déglu waaye Sénégal moom loolu dinañ ko nangu fu ne ba mu des ci diine ci diine moom maay sa baay maa la mag man xeer laa yow nen nga su ma dalee sa kaw nga toj boo dalee sama kaw toj foofu lañ lay fereenee Ibrahima moom donte ne bàyyi ma ko mag ah waaye ibrahima moo ko ëpp expérience moo ko ëpp xam-xam walakin almuddatul ulwiya jaalahu yufaqihu wa yuarrifuhu alxaq wa huwa yansahu abaahu ndeysaan walakin nee na waaye leer gi jóge kaw asamaan xam-xam bi jóge kaw asamaan moo tax Ibrahima am fit xam giñ ko xamal lu baayam xamul dëgg giñ ko xamal nga xam ne leer gaa ngi ko jóge kaw asamaan mu nekk yonent loolu moo tax mu raw baayam kon baay ji war na kaa mën a déglu pour mu jubal ko loolu moo tax mu am jot di laaye biiram baayam ñëw di waxtaan ak moom ci waxu dëgg ñun nangu nañ fii ku am alal ku ne boo ñëwee nga yàq seen kër wala nga ñëw fekk kër gi baraag la nga dajj ko kër gi ardoise la nga daaneel ardoise yëkkati ko terrasse yëkkati ko étage xam nga su boobaa lu ñu lay wax ñun kat lii lañ la juree woon ah dama laa juróon pour nga tekki nga ñëw fekk paa bi di dawal saret wala mbaam nga ñëw indi 4x4 mu ne très bien tëtëtë daal lay xëcc taf ci dënn bi jooy parce que indi nga 4 4 parce que indi nga 4 4 ah nga ñëw ne ko biyee màkkaa ngi nii mu xëcc la taf ci dënd bi yuuxu jooy yem nangu nañ ko parce que ay ay mbiru àddina la ay bis boo ñëwee ne ko pap ni ngay jullee day yonent bi daawul jullee noonu yow yaa ngi wàcc sa loxo dangaa war a taf sa loxo sa dënn xam nga lu mu lay wax mais yow mais yow yu tax nga yàpp ma mi yow may sa bàyyi man may julee nii depuis nga ñëw tey gis nga histoire commencé papa ni nga solee sa mbaxne bi papa ni ngay solee sa yére yi papa ni ngay jullee papa ni ngay jànge alquran bi da nga naan yàq na abudu yàq na sayin du noonu de hihi indi nga problème léegi ñu commencé léegi sa yaay commencé laa woo naan la xam nga démb paa bi ñëw na ci man naan ma yow léegi da nga xamati xoolal xam nga lu ma bëgg gëmal li nga gëm bàyyi ko moom ak li mu gëm est-ce que bi nga amee xaalis wax nañ la yoral sa xaalis bàyyi ñun ak sunu xaalis bi nga yore xaalis lan la la wax sa xaalis sunu xaalis la yow yaay ñun ñun ñooy yow allahu akbar tey na nga ñëw indi xam-xam bi ñu ne la hey sa xam-xam sa xam-xam la bàyyi ñoo ak sunu xam-xam kañ nga fi jàng kañ nga fi màgg kañ nga fi yaru ñetti kaña yi ñoo ñu tardeel kaña nga fi juddu kaña nga fi màgg kaña nga fi jàng xoolal doomu aadama day yegg fu papaam yeggul loolu du gàcce mbokk yi Ibrahima ñëwaat ci ba tey découragé wul ci papaam ginnaaw ba mu ko waxee lu tax ngay jaamu lu dul dégg du gis loo xam ne du la jëriñ mu ñëwaat naa ko yaa abati inni qad jaani min al ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya baay man de dëgg-dëgg maa ngi lay xamal ne dikke na ma ñëw na ci mam xam-xam boo xam ne ñëwul ci yow baay topp ma ma jubal la ci yoon wu jub bi baay nan ànd topp ma ma jaaral la ci yoon wu jub bi ndeysaan nee na fa laysa hunaka gaddaat ay ayib fa laysa hunaka aybun an yattabia alwalidu wala waladahu hal hunaka ayib est ce que am na gàcce bàyyi topp doom julli jot bàyyi raw doom nekk ci kanamu jàkk ji nekk ilimaan doom doom nekk ilimaan bàyyi nekk ci ginnaawam di li xaam sax wala noddu wala nekk ci ginnaawam sax nekk dernière sàppe est ce que loolu gàcce la mbokk yi ah est ce que gàcce la tey nga nekk nga yor 4-4 nga nekk ci kanam sa papa nekk ci ginnaaw toog ah nga koy dawalal gàcce la waaw lu tax mu bëgg a nekk gàcce doom di wax bàyyi toog di déglu lu tax Sénégal bu ko def gàcce te du gàcce léegi ñu nekk ci oto bi doom ji ne papa papa non papa kaay yéeg ci ginnaaw wooy wooy mu ne wooy wooy non non bàyyi ma nekk ci ginnaaw non non bàyyi ma nekk ci ginnaaw waaw waaw waaw bàyyi ma nekk non non non ci ginnaaw yow yaa mën dawal yow yaa jàngi woon xam nga ñun ay mag lañ ñun ci wotiir yi rek ak mbaam yi lañ nekkoon léegi nag diine bi jot doom bi bëgg a wax mu ne ko hé noppil ñun ñoo la fi jiitu ñoo la mag diine du ay mag diine du mag de kon du gàcce ma ni doom bàyyi topp ko loolu du gàcce ida kaana alwalad ala ittisaafi ala ittisaali bi masdarin ala bu fekkee doom dafa am jokk am communication ak fan ak balluwaay bu kawe mooy balluwaayu asamaan su boobaa doom jooju dañ ko war a topp fa innama yattabiu zalika al masdar wa yusiru fi tariqi ila al huda nee na baay jooju dafa war a topp doomam ndax doom ji mu ngi tànq ci balluwaay bi nga xam ne balluwaay bu jub la doom jooju mu ngi dox ci yoon boo xam ne yoon bu jub la kon doom ju nekk ci njub bàyyi daf ko war a topp doom ju nekk ci lislaam doom juy woote dëgg doom ju gëm dëgg gëm alquran ak sunna amul lenn lu bàyyi war a def lu dul topp ci ginnaawam ndax doom moo jàngi woon bàyyi amul xam-xam boobu mbokk yi loolu moo doon darsu tey aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh